essayé xool nu mu koy tere nekk candidat wallahi maa ngi koy waat fii ma toog nii ci àjjuma ji la ñu dese ci dund ñun du mbirum benn fan du mbirum une semaine du mbirum cinq lañu la dese ci dund dinañ ko jëriñoo dinañ ko jëfandikoo ñun ak ñi ànd ak ñun ñépp nag ba teg ko lu toll ni lim ñu teg wala lu ko raw parce que jaram benn la foo domp mu metti dañuy wax ni nit balaa ngay xam lu jaadoog lu jaaduwul laajal sa bopp benn laaj mooy lii ma bëgg a teg kële est-ce que suñ ma ko tegoon dina neex ci man tànk nit yeggoo foofu rek loo neex defal te foofu la Macky Sall nekkoon malheureusement onze ans yi weesu jàpp na ni moom ak njabootam ñoo gën luy dund ci Sénégal mun na teg nit ñi lu ko neex ba pare moom mu nekk ci ngun naa daa loolu mënul nekk géej naa ko fi ma toll nii bu deltuwul gannaaw xam ni li mu bëgg munut ne man mënumaa faagaagal ndax man sama carrière politik c'est intact réewum Sénégal kenn mënul wax ëllëgu réewum Sénégal te te génn ci Ousmane Sonko ak Pastef loolu mënul ne moom nag carrière politique am weesu na ab page bu ñu tourné la kon na delloo si xelam noonu ma ko waxee ci moom laa koy waxee ci ñeneen ak ñeneen te dinaa ci ñëw dama leen ne Macky Sall bàyyiwul liy firnde ni bàyyiwul gis ngeen nomination yi mu def barki démb ci magistrature bi Cissé Fall Cissé Fall mi nga xam ne moo dem cour d'appel ñu sas ko moom ne ko fexeel ba condamné Ousmane Sonko lu ëpp ñetti weer mu dem bind ay fen yu leer nañ ngeen jéggal ma ci kàddu gi ci décision bi dem ba ne samay avocat ña nga woon ci saal ba Juan Branco mi nga xam ne mu nga Paris nee na ma nga woon ca saal ba ak yeneen ak yeneen jël na ko léegi moom la yóbbu def ko président tribunal grande instance de Dakar am na lu muy waajal ci fan yi ma teel ko yëgal nag am na lu ñuy waajal te gëm naa ni bu ñu paree examen xale yi ci loolu la jublu Ousmane Gueye mi nga xam ne moom lañ demoon jëli ci cabinet Victorine Ndeye faxas ko andi ko mu mottali Cissé Fall pour ñu mun a am majorité moom la ñu def léegi secrétaire général cour d'appel non seulement ay récompense la ba ci ndaw si sant ndaw mi nga xam ne beneen procès bi moom la ñu boole woon ak euh, Issa Ndiaye nga xam ne moom lañ ko booleel pour am majorité ñoom it moom it defal nañ ko promotion yóbbu cour d'appel ak ñi ñu yóbbu cour de cassation pour préparer lii ñëw waaye dama leen yàgg wax leen problème mu Ousmane Sonko du problème mu justice néew ma gëw ma magistrat Sénégal de. am na ci ñu baax am na ci ñu jub am na ci ñu def seen liggéey te gëm naa ni bëri nañu lool waaye am na ci ñoo xam ne c'est des corrompus ndax corruption dafa bari forme dem jël la jox la ay responsabilité ne la defal li ñu joxal la promotion loolu corruption la ak yeneen yoo xam ne làqu na ci suuf yoo xam ne bu mën na ci bañ a sori waaye sénégalais yi xam nañ ko procureur yi moom tuddatuma leen ñoo xam ne tey suñu appliqué woon yoon waratuñu woon nekk ci justice bi suñu problème du fajoo ci justice wax naa leen keroog ni fi mu toll nii thème bi je éligible mooy fi mu toll nii instant bi ñuy wax nii man candidat la ndax premier dossier bi donte corrompre nañu ay juge ba ñu wax li ñu wax samay avocat nee nañ dañuy dem cour de cassation ma bàyyi la def seen liggéey def nañu seen mémoire boo xam ne cent vingt huit pages wala cent trente bañ ko def pare dama jël ay samay naataango yoo xam ne ay magistrat lañ mën leen xool leen bañ ko xoolee pare dañ ne gisuñu fan la cour de cassation mën a jaar ba du kase lii ndax ay vices de procédure yi ci nekk waxuma la sax leneen lu ñuy tudd waaye yéen xam ngeen li xew ci justice cour de cassation bi ñu commencé ñoom ba léegi da ngay am dossier béton ba ñëpp ne dossier bi gisuñu fu ñuy jaar seen yoon newu ci bu Macky Sall jaar ak ñoom fi muy jaar ñoom ñu ñëw wax leen neex waaye candidat laa ci dossier boobu ba tey ndax dossier bi jeexagul boo demee ci premier dossier bi booboo gën a neexati ndax nee nañ dañoo condamné par contumace contumace nag mooy saa su ma jógee man ne leen maa ngi nii jugement boobu anéantir na jeex na ñoom bu ñëwoon jël si ma tey jugement boobu anéantir na waaye nag li ñuy waajal dama bëgg ñun ñu préparer ko moo tax ma wax ak yéen ci anam googu dara wa ñoo bett bu dee makki Sall démb ak barki démb bi nga xam ne moo yoroon nguur gi téye ko ci loxoom lañu mënaluloon dara du makki Sall tey jii nga xam ne ayam jeex na fi mu bokk ci boppam sax muy ñi mu ànd ak mënatul am kilifteef ci ñoom du makki Sall boobu moo ñuy mën a xoqatal ñoom waaye nañu fagaru rek waajal moo tax nag ma bëgg leen teel a artu ne leen wala ma teel leen sensibiliser yéen ne am na nag piège yoo xam ñu ngi ciy tàbbal te ñu ngi seetaan loolu mooy yan piège ñu bari ci Sénégalais yi dañ naan tànk jàppuñu Ousmane Sonko yóbbu kaso garaawul jarut xeex mais Ousmane Sonko mi ngi ci kaso ci lu tegul ci yoon. weer ak genn wàll ngi nii loolu tuutiwul de depuis le vingt huit mais ba tey la quatorze juillet weer ak genn wàll ci coobare Macky Sall moom dong nee na Ousmane Sonko du génn du dem doxi soxlaam du du dem nemmeeku Sénégalais yi du dem siège dajale ay nitam du def investiture ci coobare Macky Sall moom dong nee na Ousmane Sonko maire de Ziguinchor la waaye du dem Ziguinchor def liggéeyam ba tey jii damay obligé dagg billet avion samay collaborateur jël avion ñëw ndakaaru joxe dossier yi fële ñu àndil ma ko ma mën a signé ñu génnewaat ñu laat seen avion dem Ziguinchor ci coobare Macky Sall moom dong dong dong waa lii sudul kaso lan mooy kaso mu am nag sénégalais yu jàpp ni defe naa loolu lu normal la loolu ba kañ lay durer est-ce que dañ ko war a nangu parce que nag benn ci suñuy problème ñun mooy depuis bi ñu commencé jàmmarloog Macky Sall ba léegi dañoo nekk ci position défensive mooy dañuy toog ba Macky Sall songuñu ñu ne jàpp na Ousmane wala de jël nañ décision justice bi ñu génn il faut léegi ñu nekk ci position offensive loolu nag il faut que mentalité yi avancé il faut que ñu xam ni bu ñuy teg yenn yi ñu koy nangu mooy jox Macky Sall fit mu gën a mun a teg ay jéego ba kañ lañuy nangu loolu Ousmane Sonko nit la di citoyen di père de famille di maire di chef de partie di candidat à une élection présidentielle kon loolu premier piège bi bu dee dañuy toog rek naan dañuy xaar ba ñu jàpp ko mën nañ ne duñ ko jàpp waaye nañ koo tëj ci beneen façon ba kañ ñaareel piège bi nga xam ni il faut ñu génn ci mooy ñu bëri dañ naan soo seetee Sénégal wax ji benn la Sonko day nekk candidat ñenn ñi jàpp nañ ñi tant que néew ñu Sonko du candidat waruñoo yëngatu loolu conseil constitutionnel rek moo ko mën a wax te janvier la koy wax janvier la koy wax kon est-ce que dañuy toog fi ak janvier di seetaan ñoom ñu ñu continuer seeni pexe. fi ne nii ña nga ci seeni pexe diggante Antoine Diome ak Ismaïla Madior Fall ak seeni procureur pour jaar ci ay yoon yoo xam ne kenn du ko yëg pour génne sama tur ci liste électorale bi est-ce que xam ngeen loolu moo tax xeex bi tey lañ koy xeex te nañ ko ñemee benn yoon parce que nag li ñu daj ba egsi fii suñu toogee nag di sàggan ba bàyyi ma Sall mu def lu ko neex nañu xam ni war nañu suñu bopp war nañu réew mi war nañu àdduna bi waaye war nañu surtout Sénégal yi nga xam ne gëmoon nañu projet bi ba dem xeex ba ñu faat leen ci ñii gaañ nañu ci gaañ yu metti ñii ñu nga ca kaso ba dama ne ci amul amul luñ fi war a ragal te gaaral naa leen garantir naa leen ni fii amul lu fi nit di ragal ndax xeex bi ñu mujjee xeex métti woon na trop bi diggante la premier ba le cinq juin waaye ndam giñ ci am moo andi lii lépp est-ce que xam ngeen ni seen xeex boobu moo moo xam moo tax Macky Sall génn ci troisième candidature bi xam ngeen ko est xam ngeen loolu kon xeex gi neenut dañ ko war a mottali rek est-ce que xam ngeen ni xeex googu ñu xeex moo tax tey milice dootu leen ko gis senegal ay nervi yuy génn yekk ci ay pick-up di tiire dootu leen ko gis ñoom ñëpp daw nañ ñi ñi nga Gàmbi ñi nga Guinée Bissau am na ci ñoo xam ne jokkoo nañoo ak ñun enregistrement yi ñu ngi ko téye wax nañu mbir mi nu mu doxee fan lañ ko préparé ñan ñoo sumb mbir mi parce que dañ laaj ne leen delloo leen seen arme ñu ne delloowuñ suñu arme parce que lii suñu sécurité daal di daw génn ci réew mi am na kenn kuñ ci jàppoon waaye bi ci journaliste Pape Alé Niang junjee ci ëllëg sa la ñu xëy bàyyi kon milice dootu fi am alkaati yi di police di gendarmerie doore ko ci Moussa Fall ak Bokar Yàgg ba ci suuf kenn dootu ci fi am sañ-sañu fii senegal joxe ordre alkaati yi ne leen dem leen tiire ci Sénégal yi dañ def seen liggéey nag